وجنة عن هالك مريد asalaamualeykum wa rahmatullahi barakaatu moo ngi leen di nuyu te di leen siyaare bu baax te di leen ndokkeel bu baax waaye di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool yàlla na yàggale naa leen mag ña te toftal ci yéenam ci barke Xadimu Rasul waaye di ñaanal képp koo xam ne ab taalibe Sëñ Tuubaa nga foo mën a nekk di ñaan yàlla na Sëñ Tuubaa nangu sa jëf gën ngaa rafetee noonu nangu ci barke Xadimu Rasul di nuyu bu baax kuréel bi nga xam ne ñu ko taxawal ci ndigalu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom xadim moom Cheikh Mouhamadou Bassir moom xadimu rasul mu mel ne li dal ci sunu mbokki jullit yi nga xam ne ñoo bokk nekk ci Touba te muy dogal sunu borom subhanahu wa taala ñun nag yàlla dogal ñu féete ci benn bànqaas bu ñuy wax réseau câble euh, distributeur de télévision yi nekk Touba ñoo fi teew teewal fii mbooleem ko xam ne ab réseau câble bu nekk ci biir Touba xam ngeen ni ñu ngi ànd ak sunu kilifa yu baax yi sëñ daam jigal waaye ànd ak sëñ Adama Ndiaye ñu ànd ak sëriñ sëriñ Abdou ñu ànd sëriñ sëñ modu Kuy xam ngeen nit it ni yoonu baaxoo mooy waxtu ñu déggee ndigal rek loo xam ne dafa bàyyi ko ci kilifa mag yi murit bu nekk sa yéene mooy nga dajale sa addiye jëfee li sëriñ bi wax loolu nag moo waral de somaan yi jël seen addiye niñ ko baaxoo def ci jamono bu nekk ci ay kuréel yu fasantikoo ci biir dëkk bi ñu indi seen addiya ñëw feeñal si ko xam ngeen ni sunu bokk yi nga xam ne ñoo nekk mbuur sëñ Modou moom itam feeñ ci liggéey bu baax a baax baax sëñ Modou Diagne ak sëñ baaraloom mi nga xam ne wax dëgg kilifa la ci dëkk bi waaye di kilifa yi ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey sëñ Touba waaye di ko liggéey li ci réseau câbleur moom itam ci mu ngi ci liggéey bi loolu mooy sabab bu ñu suñu indi suñu àddiyee nag ba ko dugal ci liggéey bi euh, ngir barkeeloo ko ci ngir jëfe ko ngir ngir ngir ngir ngir ngir def ndigal li nga xam ne moom la sëñ bi wax ne nañ ko na ko ñëpp def loolu moo doon suñuy tànk di ñaan suñu borom yàlla nangu jëf ji ci barke Xaadimu ñaan yéen ñi nga xam ne yéen sëriñ bi saytu loolu yi yàlla ngeen ci am ndam li mu ci bëgg ci barke Cheikh Mouhamadou Moustapha mu toll ci téeméeri junni xaalis mi ngi toll ci téeméeri junni suñu yéene daal mooy lépp lu ñu watal Sëñ Tuubaa ci dëkk bi ñun réseau câblerie moo ñu def ci suñu loxo def ci suñu addiye ci lu mën a doon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu ñu leen di nuyu bu baax te ñu siyaare turu Sëriñ Muntaxa Bachir am fekk turu daayira bi xam da ko taxawal muy junatul li man nawa mahu boo rek ñetti kuréel ci bu tarxiya Touba Ca Kanam ak mairie du Touba taxaw ko liggéey bi di leen dalal seen tur sëriñ bi di am mbégte bu baax ci teewaay bi kon eh, ni ñu ko baaxoo defee rek di sëñ bi yëkkatee ab woote mbokk si tamit dégg ko yéen da ngeen bokk ci ko dégg yéen réseau yi nga xam ne nekk Touba ngeen bokk ci ko dégg ba dajal seen alal indi ko di ko ci liggéey bi kon yàlla ko yàlla nangu ñu toll ci téeméeri junni ngeen tàmbalee ko ci liggéey bi te it damay wax na njëkkul tey ndax Touba Ca Kanam miin seen kanam ci jàpp ci liggéey bi kon ñu ngi sant bu baax a baax a baax wax ne ñun ñoo nekk fii ci kër Sëriñ Touba bi ci digal bi di di dalal di jël li ñu indi di ko def ci dëkk bi kon yàlla na yàlla nangu yàlla na ko sëñ bi nangu te ngeen gën koo man te li ngeen fas rek yàlla na ko yàlla def ci barkeb sëriñ Touba ci liggéey bi rek di si woo mbokk ci liggéey